asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu di def ben video bu gàtt rek ci lu jëm ci euh, affaire Serigne Mbaye sering bayi ko xam ci Serigne MC maa ngi koy ziar bu baax euh, dama gis ne fan yi ñaari fan yëpp euh, ginnaaw moom bu mu génnee wax ne dafa waxtaan ak Adji Sarr ci lu jëm ci wàllu dossier boobu mu nekk. Adji saat ci jëmmi boppam wax ko ne ko li ma nekk dara lu ci dëgg lépp ay tappale la euh, man euh, dafa am lu ma ci xam lu tuuti parce que ginnaaw bi ko Serigne mbay waxee euh, ñu bëree bëri dañu génn ay kilifa taxaw di wax ne Serigne mbay li wax du dëgg may confirmer ne man ci sama bopp man Cheikh Bara Ndiaye mii di wax ak yéen mën naa waat ni sëñ Mbaye waate ne man déglu naa audio yi maa ngi ko dégloo ci téléphone Serigne mbay ñas ci laa ko dégloo. ñetti audio la benn bi audio bu xaw a gudd la boo xam ne ñi ciy wax ay ay nit lañ leerul jërul may tudd tur kenn ñuy waxtaan boobu euh, am na ci mais am na ci yeneen yoo xam ne aji saar ci jëmmi boppam moom mooy discuter ak Serigne Mbaye ci téléphone di wax euh, lam ci wax lépp leer na avoué na carrément que ne moom li mu nekk nii du dëkk Ousmane Sonko wéyolee loolu la wax ci audio yooyu wax ne euh, diw ak diw ak diw ñoo ma dugal ci lii pour wax ma dañ lay yóbbu Amérique loolu man maa ko dégg wallahi azim man sama nopp bii moo ko may man maa ko dégg tey tam jërul waat jërul giñ jërul def dara parce que wóor na ma ne man Serigne Mbaye mi yor loolu li tax mu def ko liggéeyal senegal la ci jublu ak bëgg dëgg feeñ te wóor na ma ne tamit xaw ma tey lay xaar xaw ma suba mais ñëpp dinañ ko déggandoo te loolu ma lay wax bi ma ko dégloo ak léegi def naa ay semaine ci ginnaaw déglu naa euh, li am solo te am solo rek mooy ñi ma toog ñi ma gis ñi toog di xas sëñ mbay di ko saaga di wax naan day wut xaalis waxul dëgg maa ngi leen di ñaan ñoom nee nañ aji saar moo wax dëgg sëñ mbay waxul dëgg loolu lañu wax aji saar wax na dëgg mais sëñ mbay waxul dëgg ki ma ci gis démb ma seetaan ko ci télé Sénégal TV muy wax ne aj Sëñ Mbay waxul dëgg maa ngi koy ñaan li ko Aji Sarr waxal ci audio boobu bu génnee bu buñ taxaw fenn naan Aji Sarr waxul loolu rek laay ñaan na am dignité wu bu mu toog fenn li Aji saar wax ci moom ne moom ay biir audio yooyu ñuy wax am na lu Aji saar wax ci moom lu garaaw lu garaaw maa ngi ñaan bu génnee bu mu taxaw fenn naan Aji Sarr waxul dëgg na continuer rek na Aji Sarr wax na dëgg incha allah lépp dina leer.